dégg naa la ngay jëf te pencum sëñ Basiiru mu ne ko damaa bëgg sax bu màggal gi jàllee talaata ma yeggale morgo bi ak mbaar ba ca pencum sëñ Basiiru moom it di kenn ci yow waaye wax ma woon ni bala maa bala moo wax naa la jox cantam bi yaayam génnee àdduna dangaa jóge fii ànd ak mbooloo fekk ko Kawlax indil ko njaalum boppam ne loolu ku la ko defal mënatoo koo fay kon ñun ñëpp ñu déglu Mamadou Ndiaye ma sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la bu baax di ndokkee ci bés Moustapha ñëw nañ fii tey pour si la ak na mbooloo mi ànd ak yëpp jugee Kaolack ñëw pour fekk si la fii liggéey bu nga xamante ne moom lañ la tey nga yor di ko doxal ay at car macha allah lépp di rafet nga taxaw ci liggéeyu sa maam Mawlana Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu di ko sellal taxaw ci def ko yitte jox ko lépp li mu laaj amoo ci xarit si liggéey Serigne amoo ci ab sot képp koo xam ne soobu nga liggéeyal Serigne ci la dénk rek am nga keneen bu mën a ci yëfoo yittee ci liñ la dénk rek ab xaritoo am loolu Mbàkke moo nekk ci yow nit ñi xam ko ci yow nga di ko dox di ko doxam car macha allah lépp di rafet lépp it di jaar ci ko nit ñi di xaaree ci yow ñëw nañu tey ànd ak bu am solo jóge Kaolack waaye yeesal rek lële ak taal yeesal tamit cofeel boo xam ne am nañ ko ci yow mu wér waaye amuñ benn sikk ci ne yow it amoo ci amuñ benn sikk ci ne boo sañoon li nga wax barki démb ci président Macky Sall ne moom la ko Serigne Mountakha wax amul benn sikk ci ne ñun fu ñu yàlla boo sañoon mu doon am loolu nekkatul lu ñu sikk ci yow parce que dund nga ko ak ñun jaar nga fa ak ñun ñemeloo nga ñu may nga ñu fit xàll ñu jël nga ñu yooyu yëpp ay mbir la yoo ne Mbàkke xam nañ ko ci yow nga dund ko ak ñun la mi nga xam ne moom ngay liggéeyal te lépp di rafet sa barke baay nga xam ne ñépp nangu nañ ne amul benn sikki na ko ci alxuraan sikk ne njariñ nga ñeer sa waaye njëriñ nga ñeel xeet wi nga ñeel mboolem Sénégal loolu kenn mënu ko wet ñu ñaan yàlla yàlla saxal na li yàlla jigéen ci képp ku am njëriñ ci nit ñi loolu ñu ngi la yaakaaral Mbàkke maa ngi nuyu bu baax tam suma rak le directeur général bi nga xam ne fekk naa ko ci moom itam nekk sa taalibe moom itam maa félicité di ko encouragé ci liggéeyam moom it di ko ñaanal barke fan yii ñu nekk yàlla ko yokk sëriñ bi duma guddal ndax xam naa li ngay daj waaye daal na nga xam ne ñëw nañ tey ci sëriñ waaye sopp lool te xam nañ ko bu baax mbàkke yàlla nga dund yàlla nga am jàmm yàlla mottali mboolem mébét yi nga xam ne pays bi am na ko yàlla yàlla mottali sëmb yooyu yëpp sa bopp jërëjëf mbooloo mi ñu déglu sëriñ bi cheikh Mouhamadoul Basir ne salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ne mi ngi leen di delloom nuyoo bu baax baax ne ni ko lislaam santaane teg ko ci loxol Mamadou Ndiaye Rahma ak mbooleem délégation bi mu waaye nag di nuyu directeur général Mamadou Kassé ak mbooleem waa sikaab yi nga àndal yépp ak doomi boppam ji nga àndal di doomi jili la pe ne Mamadou sëriñ bi dina sant bu baax a baax dina gërëm ci sa yitte ak sa pasteef ak sa taxawaay u ne waaye nag du ndax sa maam ci ñu gënoon a jege sëñ Modou Moustapha ci la bokk ne sa maam doonoon ku rafetum xel ne jàppale sëñ Modou Moussa ci mission bi ne kon boo juddoo ci loolu ba yegg si fii ne dañuy rafet ci yow njort rek ne mi ngi lay ñaanal bu baax yàlla mottali sa mission yàgg ngi ko seqal defal la ci ndam bu baax a baax ci barke bi Sëriñ Touba ne di nuyu Mouhamed Ndiaye ne di feddale wala réem ak moom ne wala njaay ak ma Ndiaye Rahma sëñ Mouhamadul Bachir ne lu yàgg la ne ay ati ati at la te ne ñëpp xam ak cofeelam Cheikh Mouhamadul Bachir ne Modou Ndiaye sëriñ bi ne mbooleem ku la xam rek xam na cofeel gi nga ko ëmbal ak yéene ji nga ci moom ne guddeeg bëccëg nag nee boobu xamal ko boppam ne ba ciy def loo xam ne du ko yëg sax da koy def ngir yàlla di ko seedeel yàlla ne sëriñ bi ne loolu kenn amatul payam kon ñu ngi lay sant di la gërëm rafetlu sa taxawaay li ngay jëf ci nit ñi te di ko def ngir yàlla nee yàlla gën laa kattanal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 gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi